rabbi ya ahmadu ala muhammadi alayhi xayru salaati samlati rabbi ya ahmadu ala muhammadi alayhi xayru salaati samlati mbokk yi saxoo di seetaan màggal tiire touba point org asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu dal leen ak jàmm ci xibaar yi nga xam ne ni moom mooy bàyyi ko ci dëkk bu sell bi di Touba soxal lépp lu jëm ci bis ba nga xam ne nii ci la ñuy fàttaliku tukkib Serigne Bamba ci biir géej gi. xibaar yu aju ci wàccaayu màggal gi atum 2010. la ca gën a fees gannaaw matuwaay yi nga xam ne nii mboolem ñi saytu wàllu kaaraange jël nañu ko ci aar askan wi nga xam ne nii ñoom ñoo fas yéene bàyyi ko ci ay gox yu wute ngir ñëw fekkee si boobu nga xam ne nii ca la ñuy fàttaliku tukkib Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba ci biir géej gi Euh, commission bi nga xam ne ni ñoom ñoo lëkkale Safinatul Amaan di sëti Serigne Touba Cheikh Bamba jug nañu taxaw temm nag ci fas yéene jàmmaarloo képp koo xam ne nii ab samba boy nga bu fas yéene teg tànk ci biir dëkk bu sell bi di Touba ñoom kilifa yooyu nag ci janloo bu ñu doon amal ak taskatu xibaar yi ñu nañu jëmale ci fànn googule daañu leen ko dégtal ca na mu gën a yaatoo xibaar yu aju ci wàccaayu màggal gi atum 2010 ku wax màggalu Touba wax wàllu berne lu ni mel itam tax na kilifa diine yi nekk ci biir dëkk bu sell bi di Touba di ko bàyyi xel lu jëm nag ci wàllu li nga xam ne ni noonu lañ ci fas yéene taxawoo askan wi soxna maam Issa Mbacke di kenn ci ñi nga xam ne ni ñoom ñooy saytu lu ni mel am na lu mu ci andi danañ ci dikkaat ak yéen ci lu gën a raw du rayaahin di lenn ci kuréel yi nga xam ne ni ñoom ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu màggalu Touba rawatina lu jëm ci wàllu diine gannaaw jataay bu yaatu boo xam ne ni amal nañ ko dana leen gën xamale ak kuréel googu la seen taxawaay ci bis bi waaye tamit yéene ji nga xam ne ni am nañ ko atum ren ngir rek taxawaay bi nga xam ne nii baaxoo nañu ko def ci màggalu Touba lii kon mbokk yi moom moo nar a nekk ponk yi nga xam ne ni moom moo gën a fës ci xibaar yi ñu leen fas yéene jukkil niki tey ji dëppoo itam ak ñeenti fan ci weeru safar gannaaw itam ba fukki fan ak ñett doxee suñ diggante ak màggalu Touba bu ngeen taaxee loolu tuuti ñu mën leen koo faram-fàcceel xibaar yi ak seen mbokkum taalib yi Serigne Mor Doxaane asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi nga xam ne ni yéen a saxoo di ànd ak ñun ci màggal tiire touba point org dal leen jàmm ci xibaar yi nga xam ne nii mooy bàyyikoo ci biir dëkk bu sell bi di Touba sa soxal lépp lu jëm ci bis ba nga xam ne nii moom la jàpp ñetti fan ci weeru février ku wax màggalu Touba wax wàllu bernde gannaaw loolu itam kilifa diine yi yewoo ci biir dëkk bu sell bi di Touba jug nañu taxaw temm ci fexe ba loolee bañ manque ci bis bi nga xam ne nii ci la ñuy fàttaliku tukki Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba ci biir géej gi gannaaw matuwaay am solo yoo xam ne nii jël nañ ko ci soxna maam Issa Mbacké nekk kenn ci kilifa yi am na lu mu ci dénk suñu nattango Serigne Abdou Bakhe Dia tàngal kafe rek fu murid nañ jox la kafe noonu lañ ko baaxoo defee Touba di ko defee Poroxaan di ko def fu doomu sëñ Touba xewle waa ahlu kafe di nga leen fa gis boo demee waaye rawatina nag bis bu tedd bi bis bu màggal Touba gi fas nañ yéene fu fu taalibe yi nekk danañ fa yóbbu kafe incha allah ñun nag jet gi ñun daanaka ñun toujours ñoo ngi ci ndax kër sëñ Touba gi jumaa ji ñoo koy setal ajuma bu jot ak li wër jumaa ji mm-hmm. ajuma boo fu ñëwee fekk moom fa maag kafe gi mm-hmm. ñu ànd fa ñoo fa yend ba ngoon loolu lañ fas yéene nag. wax màggalu Touba wax wàllu taaraayu dëkk bi tax na itam mboolem ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di taalibe yi rawatina daayira yi jug nañu taxaw te mu ci lëkkale seen doole ak ñi nga xam ne nii ñoom ñoo war a wàllu organisation bi ah, ci kaw loolu nag fépp foo xam ne nii ab barabu jaarukaay la ci biir dëkk bu sell bi di Touba wala fépp foo xam ne ni ab barab la bu ko yelloo ñoom kilifa yi gannaaw bi ñu lëkkale seen doole ak taalibe fexe nañ rek ba taaral ko ci anam mucc ayib ngir nag mën a dalal gan ñi nga xam ne nii ñoom ñoo fas yéene bàyyi ko fu nekk ci biir réew mi ak bitim réew ngir ñëw teg tànk ci biir dëkk bu sell bi di Touba dundal bis boobu la nga xam ne nii ci la ñuy fàttaliku tukki Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ci biir géej gi ci fànn googu la nag lépp loo xam ne nii ruuse na fi ci wàllu xibaar dana leen ko dëgtal ci suñu yeneen i jotaayu xibaar. xibaar yi ak seen mbokkum taalibe Serigne Mor Joxaane bu ñu jugee ci fànn googule dañuy desandi ba tey ci màggalu Touba bis la boo xam ne nag ay millions ngi millions ngi doomu ñoom ñoo fas yéene bàyyi ko fu nekk ah, ci biti réew ak biir réewum Sénégal ngir teg tànk ci biir dëkk bu sell bi di Touba. loole nag tax na mboolem ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di takk der yi jël nañu ay matuwaay ci wàllu kaaraange ngir mën a fexe ba jàmmaarloog Samba Boy yi. Euh, Safinatul Aman di kuréel gi nga xam ne nii moom moo lëkkale sëti Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba ci kaw noonu nag ci la ñu taxawale benn commission boo xam ne nii day dugal loxoom ci wàllu kaaraange gi ci biir commission boobu léeg-léeg ràññee nañ ci lu ëpp ñeenti téeméeri ñeenti téeméeri taalibe yoo xam ne ni fànn googu la ñuy féetewoo te itam seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu kaaraange ci kaw loolu nag xam xamle nañu ne lépp loo xam ne nii ay matuwaay la ci wàllu setal dëkk bi ci lépp loo xam ne nii ay tere la a fas nañ ci yéene taxaw Sëriñ Modou Diop Diawbe nag moom mooy réewal seen kàddu ci janloo bi mu doon amal ak taskati xibaar yi ñu lu ko ci jokko bu mu seq ak Sëriñ Jili Mbàkke Mamadou Lamine Baara Mbàkke waxaat na ni waa Safinatul Amaan nañ takkaat seen laxasaay ni amuñu benn frontière sëriñ bi nee na lépp luñ gis ci dëkk bi ci lu dul noona nañ ci jëfandikoo ba loola dañ sëriñ bi tam nee na képp ku ñu nar a gàllankoor ci loolu nañ xam mooy kan sëriñ bi yëg ko mooy lépp lu sëriñ bi tere tey ñi ngi koy préparé ci màggal Touba gi am nañ ñeent téeméeri nit ak ñeent fukk ak juróom yoo xam ne ñëpp ci membre Safinatul Amaan lañu bokk ci tere yi muy wàll col muy wàll ñuy tux muy wàll ñuy sàcc muy wàllu ñi nga xam ne sax dañuy jël ay portable di ci def ay saabu di ci nax nit ak li nga xam ne mooy war réseau bi ak maquette beeg feneen doon ci biir lépp loo xam ne dañ koy tere l'islam di ko tere sëriñ bi tere na ko waaye nag dinañ ci jël ay matuwaay ren mooy fu police taxaw gendarmerie taxaw nañu xam ne membre Safina Amaana nga ci wet ga danañ dugg ci biir saytu ñëpp ñuy jaay lu ñuy tere mu mel ne sàngara mu mel ne misik muy lépp loo xam ne dañ koy tere ba ci ñiy jël alalu jàmbur kon nañu xam ni sëriñ bi joxe na ndigal ci turu maa ngi wax nag ci turu sëriñ Mouhamadou Lo Ngaabu mii sunu jëwriñ ak sëriñ Bay saar mi nga xam ne mooy sunu jëwriñ mooy membre Safina Amaana yëpp takku nañ nañ xam ne tamit màggal gi ni police di liggéey ak gendarmerie la ñuy liggéey képp ku def naka sul noonu des na la jàpp teg la ci yoon teg la ci loxol buur te lépp lu ci war insha allahu rabbi danañ ko def bu ñu jugee ci fànn googule dañuy ñëw ci li nga xam ne ni moom moo soxal wàllu organisation màggalu Touba ba tey ñi nga xam ne ni ñoom ñoo di raw du rayaayin di kuréel goo xam ne nii day sayt lépp lu jëm ci wàllu organisation bi raw rawatina lu jëm ci wàllu dine ñoom nag tàmbali nañu seen liggéey gannaaw ba weer wi teroo li ci gën a fees nag moom moo di ay waxtaan yoo xam ne ni dañu koy amal ngir fàttalante ak askan yi fàttalante ak taalibe yi taxawaay bi nga xam ne nii moom moo leen war ci bis bi ci kaw loolu itam googule kuréel euh, gannaaw ba ñu ko sosee ba léegi muy wéy di am ay taxawaay yu am solo ci màggalu Touba ba tax na ñu fas yéene xamale leen ak kuréel googule ci kaw loolu nag am na ku ñuy wax euh, sëriñ Mbacke Abdourahmane am na kàddu yoo xam ne ni dénk na ko ci Serigne Abdou Baaxe Dia ñu teewlu ko. daayira bi mbooloo la moo xam ne ci ndigal la taxaw. waaye nag ñu yëngu ci xam-xam comme daayira ñu yëngu ci xam-xam la wàll gi ñu leen doon liggéeyloo mooy ñuy tasaare njàngale sëriñ bi gan gu fi ñëw te yayoo ñu berndeel ko ca ñu berndeel ko ca ku mel ni mbokk di faral di waxe ci màggal gi seetlu woon nañ ne bernde yi yenn yi dana doy lool waaye ci wàllu ruux nag desoon na ndax nit daana ñëw màggal si ba dellu këram bu demee du la mën a nettali leer ci njàngale sëriñ bi rawatina gan goo xam ne doomi soxna la xam-xam ak diine la bàyyi fa mu jóge baax na su ñëwee nga waxtaanal ko ci loolu jox ko ci yóbbal bu demee am lu mu joxe sëriñ ca mu mel ne mbooloo mi daa sasoo woon ci ndigalul sëriñ bi nag taxaw ci taxawaay boobu ba yi njëkk a tàmbalee yëngutoom mooy ay conférence bu muy def at mu jot ci guddig màggal gi di ko defee fii ci kër Serigne Touba gi di ci leeral kuy sëriñ Touba ak lu ko fi indi woon mbooleem thème yiñ jot a jàll lépp sëriñ Touba lay wax ak nangam di ci leeral nu mu doon dunde sunna tasawuf bi mu yoroon jàmm ji mu ëmboon lim liggéey ci benn la jullit ñi ak tomb yu mel noonu ci la tàmbulee woon di yëngu waaye noonu ko sëriñ Cheikh naa waxe atum njëkk ma ak mu ñaareel ma mel ne gan ñi bu ñu demee ci sëriñ Saliou di tàggoo dañ doon wane seenu rafetlu liggéey bi ak yëg ni daal ñu ngi dolliku ci anam goo xam ne yàgg nañoo màggal si waaye mosuñoo dolli ko noonu kon mbokk yi moom moo nekkoon rek ponk yi nga xam ne nii moo gënoon a fës ci xibaar yi leen doon jukkil ni ki jii di leen sant bu baax di leen jaajëfal di rafetlu ànd ak yéen di ànd ak seen sit màggal tiire touba point org di site bi nga xam ni commission bi sayt lépp lu jëm ci organisation màggalu tuuba ñoom ñoo ko sos ci ndigalu xalifa général kullu murid loolu yi nag ñu fas yéene rek di ko wéy di ànd ak yéen fii ba ba ñuy dundal bis bi nga xam ne nii ci lañuy ñuy fàttaliku tukkib Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba ci biir géej gi ci ab fàttali nag euh, ren ñi ngi ko jàpp kon ñetti fan ci weeru février ci atum 2010 mbokk yi kan du ñu def rek lu di rafetlu ànd ak ngeen doon ànd ak ñun di rafetlu nag ñi nga xam ne ni ñoom la ñu àndal liggéey bi di istixaama di leen gërëm bu baax baax di rafetlu seen taxawaay ak seen pësteef ci liggéeyal Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba leen jox jox daje ëllëg ci beneen jataayu xibaar wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu